jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf sëriñ Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf mbokk jullit yi bokki taalibe ngi siyaar baax Cheikh Mahamadou Mountakha moom Serigne Bassirou xalifab Cheikhul Khadim di yaan mu yàgg fi mu tëwër ngir taxawaayam ci lislaam ak mbooleem ñu bokkal umma islam bépp di sant kilifa yi nga xam ni ñoo ngi taxaw ak ñoom buñ ci tuddee Cheikh Mourtada Mbacke moom Cheikh Moustapha moom Alaaji Baara moom sëñ Fallou mi ngi nii teew sëñ Fallou Fall Mbawor mi ngi teew sëñ Xaadim Bousso mi ngi teew imam mi ngi teew waaye itam noonu la ay bokki taalibe teewee sëñ Ablaye Diop Bisri teew sëñ Amadou Baaxe Bousso teew sëñ Modou Diop Jawbe nekkal xuddaamul xaddim ca Touba teewal leen fi mi ngi nii teew ab sëñ Ndaw bu Lamp Fall mi ngi teew sëñ Xaadim njaay mi ñëpp xamoon ci wàllu tàggat yaram mi ngi nii teew ñii nag dina am ñu ci jël ay kaddu kaddu yi dama koy ubbi rek ndax nun seen dongalan mu am loo xamante ne alerte la ñuy def nun yoonu murit tooñuñu kenn màggal yi doy na nu sëkk ak ndigalu sëñ Muntaxa nu jëfe ko télévision yi nga xam ne taalibe sëñ Tuubaa yi ne nañ fi ku mel ñoom sëñ Abdourahmane Ndaw ñoom sëñ Ablaye Diop Bisri ñoom sëñ Gànna Mesere ñoom sëñ Ceddo problème bi nu am mooy seenu sëriñ lañ bëgg mu def ay jaloore ñu taxaw di ko nettali noonu mu ne doone dëgg it la nu gisee loo xam ne du dëgg te teewut nu maandu ci sunu yoon nekku ci njëlam lii mu lii nu sukk daf noo doy ñu ciy xewlu ba tax na nu am ndigal ci sunu sunuy kilifa kilifa yi nu am ndigal mooy am ay bandi laa leen mën a wooyee yoo xam ne dañoo làqatu ku mel ni ki ci gën a fes muy Omar Diagne mi ñu wane fotoom ga xam ne depuis Masalik gi ubbi amul jàmm attaqué na yoon wi ñu wax mu ne dañ may yónni ci sëñ bi pour ma jéggalu jéggaluwu ma aw ma ku may jéggalu di wane ne moom dafa am fu mu bokk bi mu bëggee làqatu ci tarixa lan laa ne ko ñun amuñoo benn tarixa xaar ma yàlla toujours nga gis ay sëriñ ñaseen ñëw fii ci jumaa ji àndandoog ñun julli toujours nga gis waa Tiwaawan ñëw fii àndandoog ñun julli jumaa ji ñëpp moom ko ba évêque yi nga xamante ne chrétiens yi sax dañ cee wax wax ju rafet moom lañ gis mu jël kàddoom gu ñaaw boobu ba tey bàyyiwul ñu koy wax ne ko bu fekkente ne day jaay affaire connaisseur nun ñoo ko gën a nekk ay nandite ndakaaru lañ juddoo bu dee day jaay bandi mën nañoo abbaat sunu bandi bandi gi nag dañ koo bàyyi woon dencoon ko fenn rek di am lu muy xaar su taxee ñu solaat sunu mbudd mbubbum dana danañ jàmmarloog moom loolu suñ xaadim Njaay dina ci ñëw ci kanam muy ko xam ne day bëgg a nax murit yi day génn attaqué sëñ Tuubaa ñetti weer sëñ Muntaxa def jëf ju rafet mu génn di ko tagg loolu nand nañ ko mais nu koy wax ni ko mayeetuñu ko sax mu wax ci sëñ Tuubaa lu rafet moom ñun am nan ñu ñu waxal ci sëñ Tuubaa lu rafet moom la ñu moom turu sëñ Tuubaa na ko ba ndax moom li mu ne ñun suñu yoon newu ci na bàyyi turu sëñ Tuubaa lu mu ko jaral jaral nañu ko barki démb nag sëñ Xaadim Bousso noo ngi leen di sant bu baax Bousso barki démb li xew xam na ko moom organe ba ñu ko fekk rus borom rajo ba nga xam ne livre bi mu njëkk a def muy Sidi Lamine fii la ko binde ci Masaalikul Jinaan ñuy ñaan sunu borom dellu leeram moo tax la waroon a xew xewul waaye ñi ngi wax presse senegal kooku yoonu murit la attaqué guerre même mayatunu keneen képp koo xam ne sax ti nga li ngay def ci réewande ba attaqué yoonu murit même boo demee ci sëñ Muntaxa mu baal la kuréelu saytu yoon wi du la baal parce que yow da ngaa dem jéggalu d'accord sëñ bi jéggal na la wàllam mais nag li nga wax mi ngi ci réseaux sociaux yi di tourner kon réew mi jàmm lañ ci bëgg état bi nag ñoo ngi leen di interpeller ñoom ñoo ñu yilif nit war ta fajal boppam te sëñ Basirum sëñ Abdou Khadr ci mbaax gi ci gore gi ci bëgg lu baax dégg nga ni mu waxee mën nañ koo faj mais buñ ko fajee mën naa ëpp comme mën naa ëpp nag am na ñu ñu war a atte sëñ Fallou Fall Mbawor lii rek laa doon duggee ci kaddu gi di leen wax na daal. lu mu leen jaral képp ko attaqué ci Sëñ Tuubaa teg ko ci réewande dinañ àbb ru donte réewunu dinañ àbb mbubbum réewande sol ko dal ci sa kaw bu de da nga koo def ci banditisme danañ àbb mbubbum bandi solaat ko dal ci sa kaw soo ko defee nag ci xam-xam am na ñu lay tontu ci xam-xam du maam Mor man ooma xam-xam ñi ko wax bari na waaye gëm gi Sëñ Tuubaa ak bëgg gi mi ngi fi te ak wóolu gi nan leen taxaw nun mu ci ndakaaru saytu yoon wi ubbi nan kuréel dégg naa ñu naan ndax nit du la filtré même ñoom noonu yi ñu bëggee bokk ci kuréel gi sax nan ma woo sama numéro ma dugal leen ñun nëbbatuwun képp ku attaqué ci yoon wi la la fay fekk mi ngi lay yaa ngi koy gis asalaamaaleykum kon nu bàyyi sunu kilifa yi jël kàddu. Euh, kon kàddu yi du gudd waaye damay jiital euh, nuyu ñi nga xam ne dama leen fa fekk di ay mbokki taalibe di ay kilifa sëriñ Xaadim nii di Euh, njiital jotaay bi ñun ay taalibe lañ maa ngi ziar baax sëñ Mat Diop Diawbe sëñ Thierno Mamour Mbaye gaynde la ak ñi fi nekk ñëpp ak sëñ Ablaye Diop du sëri waaw ak sëñ Abdourahmane Ndaw kon kàddu yi du gudd ndax Mamour li mu wax dafa dafa gàtt dafa tënk lépp fii li ñu teewal mooy rek euh, euh, firndeel fabu gu ñu fabu nag fas yéene aar yoonu murit parce que yoon wi suñuy maam ñoo ko ñoo ko sàmm ñoo ko sos sàmm ko moom egsi fii musta gàkk Sëriñ Tuubaa du moroom kenn lu ñu nekk ba fii nag ba yoon wi mel ni mu war mel ay gone yu ndaw jóg ne dañ koy gàkkal ci ak xamade ko réewale ni ko sëñ Ablaye euh, Mamour waxee léegi bu dee xam-xam la ñu mën a jënd maamam ci xam-xam jàngal maamam ak maamam ba ñu leen jàngal ñu leen ëpp xam-xame ci ne j'en veux pour preuve sëñ Xaadim rek docteur la en science islamique un exemple te te ndaw la ñu ko jàngal tubaa ba mu ba mu ba mu mën li mu am mi ngi fi bu ñu wax problème mu xam-xam réew ñun ñu noo muus stratégie ñuy utiliser ak subterfuge yëpp pour di ñu attaquer di matt di wal xam nañu ko daf ñuy xeeñ man ku bañ Serigne Touba euh, bu ma rombee xetam bu ma gisee kanam gi xetam damay xeeñ kii dafa bañ Serigne Touba ñu def lu ñu xamul on est ñu ngi ci biir net bi ñu ngi ci média yi guddeeg bëccëg suba ngoon amul lenn lenn benn luñ mën a jaaree ba defe ne li ñuy def seen ñu ngi déroulé seen stratégie te xamuñu ko léegi ku ñëw ak xam des na la tontu mais ku ñëw reewnde ak xamadi danañ la jaay reewnde ak xamadi euh, bu fekkee moom dafa defee ne moo nu wala moo nu ëpp fit ah wala moo nu gën a moo nu ëpp euh, euh, dara lenn lenn loo xam ne war nañu ko mën a jaay mooy dof amul ñu koy digal ñu koy ñu koy jey ñu koy jey bis li koy dal bu ko dalee du leen gis waaw man dama sama émotion moom forte ba mënu ma wax li wér daal mooy mayetuñu euh, nu mu tudd encore Cheikh Oumar jaañ ak ñi mel ne moom danaa ci waxaale sax euh, oustaz Alioune oustaz al Omar Omar Sall ak Aliou Ndaw ak ñi mel ne moom mayetuñu leen ñu tudd tere Serigne Touba bu ma rusul woon ñi fi nekk dana am lu ma wax kon mais mayetuñu leen ko soxlaatuñu seen soxla ñu wax seen Serigne Touba lu baax soxlawuñu wax ci leneen ñun ñi xam Serigne Touba judd ci màgge ci di am esprit critique di ay intellectuel Serigne Touba doy ñu ñu des si soxlawuñ ko ñu si keneen jàmbur mu ñu si waxal dolli dara loolu doy nañu waaw suñu mënee maandu ci ñu maandu ci ñun suñu ci ñun nag la guerre est déclarée te ñun du ñu dalu gannaaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf taala wa barakaatu. Euh, noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare euh, di leen xamal ni euh, moom maanaam man dama siide sax tudd turam parce que je n'accorde aucune importance à ses propos ndax dafa jàpp ne moom dafa xam dara xamul dara ndax boo xoolee ni muy ni muy waxee da ngay xam ne arrogance àndul ak xam-xam boroom xam-xam du yaree di ko benn li mu jëkk a wax li lay wan ne lépp ay fen la mooy Serigne Touba mësta dëkk fu télégramme mën a agsi Serigne Touba ba 1895 jotewul ak tubaab bi dara 1895 lañ jote ñi mu jëkk a tudd barke démb naan ay résistant lañ muy Cheikh Omar Foutiyou Tall Cheikh Mouhamadou Lamine Dramé ak ñi ci des ak ak oustaz ak ak Maba Diakhou ñooñu ñoo fi jiitu Serigne Touba fuuf bokkuñu jamono Cheikh Omar Foutiyou Tall 1864 la fi jóge kon li mu bëgg mooy jéem a jaxase xelu nit ñi te bokkuñu sëriñ Touba ay buur yu fiir ak i sëriñ yu seeni taalibe fàq jëm si ci moom ñoo dem jaxase ko ak tubaab bi bi ñu dajee itam 1895 ba 1927 bi fi sëñ Touba di jóge sëriñ Touba mësul am liberté moo lay won ne il a toujours gardé son statut de réfractaire sëriñ Touba est un guide religieux réfractaire à la République comme li ñuy wax affaire résistance résistance boo xam dañ lay rey amul njariñ la preuve de la victoire de Serigne Touba c'est sa vie c'est son vécu de 1902 à nos jours parce que ku tubaab yóbbu juróom-ñaari at delloosi la échec na ci yow jëlaat la yóbbu la Mauritanie cinq ans pour fexe ñu complexer loola pas pour rey la Mauritanie amatu ci pexe pour fexe imposer la ay complexe par rapport ak der bu weex nga dellu siwaat moo lay wan ne échoué na échec yooyu nag ba léegi noonu sëñ Tuubaa yi ci la ñuy dox du ñu dem fenn lii muy wax société secrète yi nanga ma ñun li ñu maîtriser ci loolu dañ dul dugg ci ay détails mais li muy laaj ñàkk xam moo tax mu di ko laaj collaborateur boo xam ne trente cinq ans de captivité nga def fan la am trente cinq ans yoo xam ne amoo benn privilège musuñu laa jox dërëm musuñu laa dimbali musuñoo dimbali say taalube musuñoo laa takkal croix légion d'honneur lañ la jox nga rejeté ko parce que le croix la croix de la légion d'honneur est frappée du sceau de la franc-maçonnerie c'est des médailles qui ont été fabriquées du temps de Napoléon Bonaparte Serigne Touba xam gi mu xam li jiitu ak li mujj moo tax mu delloo leen seen médaille ndax xam na ni la ca suuf symbole ba baaxul sëriñ bi li mu xam lépp ñun dañoo tuuti ci développé ko mais ku ñu laaj ci ay teggin ñu wax la ci ay teggin ku ñu laaj ci yar ñu wax la ci yar on ne peut pas faire en sorte que les mourides soient complexés par rapport à quelque idéologie que ce soit Serigne Touba c'est la solution que l'islam a apportée à toute cette guerre mondialiste fii ñuy wax ak yow nii ci ñett yii ci xidma ci bëgg sëriñ bi ak ci maanaam maanaam ci xidma ci bëgg sëriñ bi ak addiya ñett yooyu mhm. ci la muccee bi Serigne Touba di wax ne iimaan di xaalis dina ko fi jëlee mhm. booba du xaalis bi ñuy joxe addiya ñun joxe gi ñuy joxe xaalis addiya moo tax sunu imaan mucc islam bi ko fi tubaab bi waree jëlee bëgg gi nu bëgg Serigne Touba moo ñu musal ci tubaab bi ihsaan bi ko fi jigéen waree jëlee dogu gi ñu dogu ci di liggéeyal sëriñ bi moo tax kenn ñu dara sëriñ bi dafa andi ay ponk yoo xam ne ay solution ci problème mu àddina bi muri yi moo tax ñu décomplexe am identité am idéologie di ko dund képp koo xam ne nag loolu dalu la da ngay sa xol day bon gis nga jumaa ji c'est une réponse à l'obélisque qui est juste à côté gis nga cette place de la nation où des musulmans vont manifester tout bêtement c'est parce qu'ils n'ont rien compris fii la musulman yi war a waxee li leen neex ak li leen naqari fii mooy ndamu l'islam des musulmans vont aller sous l'obélisque pour manifester c'est idiot parce que l'obélisque est une marque franc-maçonne mi ngi fii ci réew mi Serigne Touba nag xeexul ak tubaab bi ci sayr da koo bàyyi muy def li muy def moom muy def li muy def parce que xam na ne noonu la ñuy jëflante ahlu makr la ñu méngool jamono mooy fexekat yi ce sont les les les occultistes kuréelu kuréel yi yi nga xam ne dañuy def ay yëf ci suuf ñooñu la sëñ Tuubaa dajeel te dane najaytanii min makri ahlil makri fa laka min niya dawaamu shukri mucc naa ci pexey way fexe moo tax ma saxal ak cant sama digg ak sama borom benn traitement bu bon boo xam ne mës naa koo gis ñu koy traité maanaam collaborateur gisuma ko sëñ Tuubaa amul dara ci Ndar Rufisque dakaar Gorée te ñeent yooyu foofu la tubaab yi nekkoon fa lañ doon accordé privilège seeni xarit sëñ Tuubaa amu fa dara. na yaatu na yaatu. jërëjëf xaadimu rasuul. yaa jumlatan xat sallasoo bi dalaalihim man lam yakun lahu waladun aw waalidu axrajtumuni naatiqiina bi annani abdul ilah wa innani la mujaahidu wa zannantumoo anna al madafia indana wal kullu minkum zo qillan wa yuhaasidu fa maqaalukum inni ujaahidu saadiqun inni li wajhillaahi jalla ujaahidu inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa abdan xadiman wal muhayminu shaahidu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokki réew mi boo gisee sunu rassemblement tey jii ginnaaw bi nu jooxee jullik aljuma ji ba noppi xam ni am na lu nu naqari ndax dañoo laal sunu pas-pas jëmm ji nga xam ni ku ko taggul liggéeyaloo ko gëmoo ko maandu ci moom moo la war mais tooñ baaxul te lii alerte la c'est une alerte à l'endroit de Omar Diagne un soi-disant professeur nous savons parfaitement qu'il n'est pas professeur parce que un professeur ne, te, ne, ne tiendrait jamais ses propos blasphématoires à l'endroit du mouridisme et en particulier de Serigne Touba Khadim Rasoul qui a sauvé l'homme noir, qui a sauvé l'Afrique. Donc si nous ne voulons pas un respect à Serigne Touba, nous devons laisser Serigne Touba à côté et le mouridisme sans nous attaquer. Nous n'allons plus accepter ces propos blasphématoires à l'endroit du mouridisme. Ça, c'est une alerte à l'endroit de Moussé Diagne. Je ne vais pas nommer son nom, mais c'est une alerte. Le Sénégal, c'est un pays de droit. Donc nous alertons le président de la République parce que le pays appartient à tout le monde. Et nous sommes fatigués de recevoir chaque jour, il y a un bon temps, nous ne cessons de recevoir des propos acerbes, des propos blasphématoires à l'endroit du mouridisme. Et nous en avons assez. Maintenant, c'est fini. C'est une alerte Mais la prochaine fois, nous ne ferons plus d'alerte. Nous allons directement descendre sur lui pour lui montrer que nous sommes prêts à nous sacrifier pour la cause de Khadim Rassoul. Parce que Serigne Touba qui nous a libérés. lii dañ koy leeral moom nii bu ëllëgee du ñu taxawate di wax ak moom dara dañuy wàcc ci kawam xamal ko ni dëkk bi dëkk droit la waaye wax nañoo ak président de la république ci mu artu ñi nga xam ne ñu ngi jug di jéem a nasaxal ak di ñaawal liggéeyu Serigne Touba. Serigne Touba ku ko gëmul gëmoo aw yoonam maandul ci moom te xam ni ñu la mag ñoo ko gëm ñu la dàq jàng ñoo ko gëm ñu la ëpp xam-xam ñoo ko gëm ñu la gën juddu ñoo ko gëm ñoo xam ni pare na pour joxe seen bakkan ngir Serigne Touba ñun Serigne bee nu gën a lépp àdduna li ci biiram boo ko tegoon suñu loxo ñu wan ko ginnaaw bu fekkee dañuy ñàkk Serigne Touba kon nag na xam ni ci pas-pas lay dugg te loolu lu garaaw la te moom li muy wax dara da cee saxul da ngay xam ni il n'est pas un professeur. un professeur qui parle mënta wax erreur yu rëy yi mu wax yu nu rëyee ak yu nu ñaawe amul benn cëslaay ci li muy wax parce que bu fekkee dafa wax nii Serigne Touba da doon collaborer ak nasaraan bi mais kon lan moo tax sëñ Touba génn ci dëkkam ku collaborer ak tubaab bi dangay toog sa dëkk ñu lay neexal nga leen di doxal ay ay ay mission toog sa biir dëkk mais Serigne Touba rek la ñu génnee Serigne Ahmadou Diaw Paxa dafa wax ni. fa zaaka allazi qad jaa wa diinu mayitun fa ahyaau saxsan fil amaakini maasiya sëñ Touba moo génn te bi muy génn fekk nañu rey lislaam jàpp ko otage kenn yënguwul sëñ Touba rek moo bañoon sëñ Touba rek a taxaw ca bureau ba ca ndar yëkkati islaam toroxal kéefër ak bokkaale yàlla ba tey ñu ngi koy fàttaliku loolu mënuñoo bokk ñun ñëpp nekk ay dof xam na nañu histoire bu baax a baax moom na tey ñun ñoo ko dàq jàng mën nañ ko jàngal tubaab mën nañ ko jàngal leneen na tey xamul dara parce que li mu wax dafa nekk ay erreur yu rëy waaw sëñ Touba bu fekkoon day collaborer ak tubaab ndax dina taxaw ci bureau gouverneur julli fa julli goo xam ne tey ñu ngi koy fàttaliku ci àdduna bépp di ko màggal te muy te muy sunna mu tax fa ci biir bureau gouverneur Serigne Touba bu fekkoon day collaborer ak ay tubaab xaside gii ma doore mu yaa jumlatan xat sall soo ñoom tubaab bi lay waxal yéen les gens de la Trinité yéen ñi associé yàlla di wax ni ñett la yéen laay waxal àgg na ci biir xasida gi ni leen yéen seen góor ñi amuñu fulla duñu sax xarafal waaw koo xam ne ragal nga tubaab di négocier ak ñoom ndax di nga xas ay tubaab te à l'époque ñoom ñu amoon fi benn bureau politique ñoom tubaab yi amoon fi benn bureau consultatif boo xam ni ay affaires religieuses yëpp dañ ciy chargé wu amoon ay traducteur yoo xam ne ñuy traduire langue yëpp dégg arab di leen jox information yi sëñ Touba amoon fi noonu bu fekkoon tey dafa xas tubaab bi tubaab bi mën dara ci moom kon def na ci moom dara nan ñu bàyyi ak sëñ Tuubaa moom la ñu gëm moom li ko weddi mooy y a commandant de cercle du nom de Antoine Marc Lasselve kooku na dem ci archive mu xool ko commandant de cercle bu Diourbel de 1913 à 1915 deux ans la nekk ak sëñ Tuubaa daana bettu sëñ Tuubaa ci biir guddi ak bëccëg mais li tax ma koy def mooy damay saytu bi mag ñi dee kaas sëñ bi dañuy bàyyi leen ko dafa bëgg a xool ndax sama biti ni ma sete sama biir sete na ni bàyyi leen ko mu xool waaye sëñ Moussa Ka dafa waxoon ni deful xejj buy jël zaayiram sànge baatinam xañul nit mbirum biiram xañul nit mbirum kawam mbirum zaayir ak baatinam ma dara yàqu ko tubaab boob bi mu demee ba def deux ans ci sëñ Touba moo bind article mu ngi ci archive na fa dellu nilarcule e na dem mu jàngi loolu li tubaab bi wax moom mënta gën a xam tubaab bi ñëwoon di diriger njaareem li bind jëme ci sëñ Touba te la mu wax ci sëñ Touba dafa wax ni ce Cheikh Ahmadou Bamba détient certes une puissance innée dont la raison ne parvient pas à expliquer la source et saisir la sympathie mu la soumission des hommes envers lui est extraordinaire et leur amour pour lui les rend inconditionnels il semble qu'ils détiennent un secret divin et une lumière prophétique semblable à ce que nous lisons dans l'histoire des prophètes et de leur peuple les plus injustes des hommes kon ci la bokk moom les plus injustes des hommes Omar Diagne ci nga bokk les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines sont ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations comme Omar Diagne les plus injustes des hommes et les plus ignorants des réalités humaines soo ceux qui avaient porté contre lui de fausses accusations comme comme l'a fait Omar Diagne ñooñu ñoo gën a réere sëñ mu ni sa seex de njaareem sa distingue par une pureté de cœur par une bonté par une grandeur d'âme, par un amour du bien, aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi. qualité pour lesquelles ses prédécesseurs l'auraient envié, quelque grand que fussent leur prestige, leur piété et leur sainteté. Mais je sais que les saints et les prophètes qui ont mené une guerre sainte l'ont faite sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cerf d'Angarem que j'ai rencontré au cours de ma vie. dégg naa ko mu ni ci collaboration bi Sëñ Tuubaa def ak ñoom day dem di naandoo ñoom café Touba kii moo waxoon loolu kii muy wax Antoine la Lasselve mais demewul noonu dafa falsifier histoire te li Omar Diagne def c'est très grave ndax l'histoire reste nous avons des générations futures qui vont apprendre l'histoire du Sénégal l'histoire reste donc nous n'accepterons plus qu'on tienne des propos qui sont faux à l'endroit de Serigne Touba moom il a falsifié l'histoire parce que kii muy wax di Antoine Marc Lasselve li mu wax mooy Serigne Touba ñun ñoo dem ci moom doon sàkku am moom benn jataay donte benn jour la mu accordé ñu naan ci suñ naan kafe nee na bi ma koy defar mu laaj ma suukaru tël si moom lay jëfandikoo lii la ko bind ci at na dellu ci archive nee na ñu ni ko amu woon tël si mu ni kon café kese baax na ba pare mu li ma gën a yéem ci sëñ Touba da cee teg condition dani kaas bi ngeen ma defal ma naan ci bu ci doomu aadama tiimaat nañ ko suul ndax liñ koy wormaale lay wormaale boppam loolu la ca teg kii di wax ay collaboration non nañ nañ arrêté yi ñu def Serigne Touba moom na xam Omar Diagne ñu jigoon pour enclaver la mission de Serigne Touba mais ils ont failli en commençant par le premier président de la France waaw bu ko fekkoon da nga may posone mu ne ko soo ma lay soo kaas bii ma ni yaa ngi may posone kooku mooy Serigne Touba Khadim Rasoul ma xamal ko moom Omar Diagne ni ko nan laaj ñu jugoon di jéem a xeex sëñ Touba fi ñu mujjee mu jëm du baax de bu tuubul ñu jugoon di xeex sëñ Touba fi ñu mujjee on peut prendre l'exemple du président de la France de 1887 à 1894 qu'il aille vérifier dans les archives comme c'est un archiviste donc je lui je le conseille d'aller vérifier dans les dans les archives Sadi Carnot le président de la France de 1887 à moo njëkk yónni ndaw pour xeex mbiru sañ Touba fii ci Afrique yebal fi gouverneur bu ñuy wax Clément Thomas mais fan la mujje moom moom Sadi Carnot en 1894 ñu doon def benn exposition à Lyon mu demoon ci en tant que le président de la République ñu daal ko fay fekk jam ko paaka empoignardé ko il a été empoignardé par un anarchiste italien du nom de Sant'Esario Geronimo fan la ñu mujjee fan la Luis Mute mujjee fan la ñu mujjee fan la Félix foor mujje fan la teeñ tanooru goj mujje kon ñoom ñëpp mujj torox fan la maam Abdoulou mujje fan la Dudu ma Mbay mujje kon moom na def attention Serigne Touba du moroomam du moroomu maamam du moroomu baayam mbir soo ko gëmul da nga ciy maandu lii nag ce n'est qu'une alerte la prochaine fois duñu tenir un point de presse dañuy dem song ko fu mu nekk parce que lu mu ko jaral ba muy saboote jaral nañ ko loolu lañ gëmee Sëñ kon nag nañ ko nañ ko wax président de la république mu dégg ko dëkk bi day un pays de droit moo tax ñu def nii lii di premier pas bi la prochaine fois nous n'allons plus nous n'allons plus accepter ces propos tenus à l'endroit du mouridisme su beneen yoonee dañuy dal ci kawam jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi siyaar mbokk taalibe yëpp di rafetlu jataay bi waaye di mbokk yi liñ jiitu liñ wax doyoon na sëkk ndax seen pas-pas fu ñu yéegee bañ tax ñu waxee ni ñu waxee loola itam lu am solo loo xam ne lu jar lu jar jël ay ay mesures la ci yëf Omar Diagne nag moom dafa tuuti ci régler solution musulman yi wax ma senegal ndax buñ delloo ci diine rek euh, juyoo gi am ci julleendoo gi yàgg na ci jamono yonent bi alayhi ndax am na ab sahaabi boo xamante ni ni ku ñuy wax mu demee Saam def julliwut waa Makka waa Madina julli te ñoom julliwut kon juyoo gi foofu la jëkk commencé waaye ñun suñuy problème nga ci bopp ci julli ci lislaam ji dañ koy balluloo ci li nga xam ne ci moom lañuy ñu seexul xadim jar tënkuñu ci te muy diine joo xamante ni dara sikk ci dara dox di wax nag yéen a ngi tudd président de la république bu fekkee kenn offensé na ko ci population bi ci article 80 dafa wax ne dañ koy interpellé woo ko président de la république Omar Diagne yëmul ci sëñ Muntaxa yëmul ci Serigne Touba waaye da cee boole président de la république parce que dafa wax ni président de la république ab yéefar la ab yéefar la ko koy tax ko ànd ak moom ab yéefar nga te ñu gis ni mi ngi ñëw Touba di am ñu mu fay dafa ko wax ci cadre liggéey Serigne Touba lu sori politique. kon sëñ Mountakha seytaane sax yëbu ko Iblis ñemewu ko ndax sëñ Mbacke Bousso dafa mas a seede ci Serigne ci ci benn euh, sër Serigne Touba lu am solo dañuy Serigne Touba day Iblis ñemewu ko Iblis man mii Iblis ñemewu ma waaye Abdou Aziz Mbacke mii mu sëñ Baara am naa ci moom yaakaar ndax damaa ñeme kon ku xam sëñ Mountakha xam taxawaayam. li nga xam ne mi ngi koy def ci diina ji di ko taxaw askanu Sénégal war ngaa mën a yëkkati ruusa yëkkati ay kaddu yoo xamante ni da koy offensé di ko jëmee ci moom boo boo rusu sëñ Touba nag rusoo sëñ Muntaxa duñu rus ci dara lii nag doon na loo xamante ni nii comme ni ko euh, Abdoulaye Diop Bichri waxee lii maa jàpp tey la tey lañ koy tey lañ koy dakkal conférence de presse bu jëm ci wàllu ko offense Serigne Touba tey la tey la war a dakk tey la war a dakk ñu réagir tey lay jeex su fekkee nag su fekkee nag état wala gendarmerie wala police wala droit dafa bàyyi ba nit wax Serigne Touba lu yëkkat suñuy xol ñuy réagir mu soog mu soog mu soog a jóg loolu tamit yaakaar naa ni war nañ ko saafara yoon war naa am nu taxawee noo xamante ni nii képp koo xam ne offensé ti nga dara ci diina ji rawatina ñi nga xam ne ñoo taxawal diina ji man Serigne Touba ci yoon wi ñu xool bala bala suñuy réaction di jóg ñuy def lu ëpp yow war nañ laa jël si wax ak yow loolu mooy yoon fekkee ne sàmm lu ñu yoon woowu nag ñun dañu ko sàmmal suñu bopp loolu nag duñ ci déglu ma baal Cheikh Bass na koo baal keneen mën na ko baal ndax dafa avancé ñëpp la avancé ndax ñun maam àndoon Serigne Touba di liggéey ci diina ji ñun la parce que ne Serigne Touba Touba fii ci ci wàllu jàpp ak julleeg góor kon ñun la njëkk a kon ñun duñ ko baal tey duñ ko baal ëllëg lii nag na tey li des nag mooy ñu xool nañu demee këram nañ xool nañu demee këram loolu laay foofu laay woo foofu laay man bu sama sang waxee sax Mbàkke Balaay sax waratuma jël kaddu. man dañ ma man dañ maa war a wax rek may appliqué. dañ ma waroon wax këram fan la ne rek ma appliqué ak samay ñooñ ndax Sëriñ Tuubaa du moroomu kenn ndax lii kenn sañul taxaw Makka di wax yonent bi sallallahu alayhi wa dara kon ñun murit ñoo war a am fulay suñu lay bopp bu dee intellectuel am nañ ko sëñ Xaadim a ngi nii intellectuel au niveau doctor mi ngi nii taxaw di xale bu ndaw. Mbacke Balaye sa ah kon buñ bu sagaru nit bu jóg mayetuñu barki Serigne Touba Mbacke billahi Mbacke maa ngi leen koy ñaan mayetuñu benn mbindeef billahi wallahi tallahi mayetuñu benn mbindeef muy jóg di wax dara ci Serigne Touba barki Serigne Fallou Mbacke di wax dara ci Serigne Touba. billa jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. li ci war nag mooy. bu ku ko jégal man jégalu ma ko ba koroog may sàngoo suuf barki Serigne Fallou Mbacke bii lay jégalu ma ko te nag lii nag alerte la tey lay dakk tey lay njëkk tey lay mujj ci yoonu murit mayetuñ benn mbindeef muy jël dara ba ci mbàkke mbàkke bi ci gën a ndaw ngay jël aw aw ab melantaan sax di ko ko ko kooku billaahi wallahi boo ko defee dinañ fekk sa kër yow Omar Diagne xam nga man xam naa la xam naa sa kër fekk nañ la koro gaay fekk nañ la wal fajiri nga daw li ci des nag mbéjum kanam borom a koy fajal boppam mbéjum kanam borom a koy fajal boppam doy na nag barki sëriñ Touba Mbacke doy na mayatuñ benn mbindeef mu yëkkati dara di ko wax ci yoonu Serigne Touba jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te wér. di ñaanal tam Serigne Cheikh Jëmmu Fall mu yàgg fi loolu te wér. tey nag ñu ngi fii ci Masalikul Jinaan ganaaw bi nu sante suñu kilifa yu baax yi fi taxaw ñu xam leen ñoom ñëpp ci taxawaay bi nga xam ne xeexal sëñ Touba ak taxaw yoonu diine ak lislaam rek lañu fi nekkee ñu ngi leen di sant di yëkkati nuyoo boobu ñi ngi ñëw nag ci turu Serigne Amsa mu Serigne Abdou Lahad Mbacké ku ne xam na ni e, moo jiite xuddaamul xaddiim waaye ñëw tam ci yoonu murid bi yëpp ndax Touba lañ jóge ànd nañ ak ñaar fukki nit ak benn yoo xam ne ku ci nekk jiite na kuréelu xuddaamul xaddiim lu toll ci fukki nit ak juróom dem léegi ñu ngi fi di sant Khadim Ndiaye di sant sëñ euh, sëñ Fallou Fall Mbawar mi nga xam ne ñoo ànd jóge Touba ak mbooloo mi ñu àndal ak ñi nga xam ne dañoo pratiquer ñëpp te ñëw te lii naqari leen mbir mi nag bi nga xamee ne ki am na euh, ñi ngi sant sëñ Bass Abdou Khadir bu baax ndax yëkkati na kàddoom wax ca lam ca war a wax ñi ngi ko ciy sant bu baax di ko gërëm ci turu xalifa général des Mourides waaye nag dafa am loo xam ne Mouride yi sëñ Touba dong lañ gëm te sëñ Touba mi ñu gëm mooy mi julli woon ci géej gi kii di Omar Diagne bi mbir yi amee jokkoo na ma ku ñuy wax Mbaye Babacar Mbuub ci téléphone ni nag dégg naa ne da ngeen di eh, eh, da ngeen di xeex ak ak yelleef ak ak nag dana gënu cee gënu cee wér xeexal ko Serigne Touba. ni ko nag kooku ñuy wax Ngor Soosu Jaañ li mu wax nee nañ la xaritam nga ci télé koy waxee jot naa la téléphone am waaye naa la audio am waaye naa la li mu wax. dans quelques minutes après ci la ma moom Omar Diagne woo ni ma dégg naa li ngeen wax ma ne ko yow Omar Diagne Ngor Soosu Jaañ nee naa la yow bàyyeeguñ la te ñi ngi ci sa kaw. wax naa la ko ngay dégg téléphone jot nga ma téléphone wax naa la ko gannaaw boobu nag ci turu xadaamul xadim def nañ li ñu war a def ndax réew mi ñu nekk réewum droit la moo tax ñu porté plainte euh, def nañ plainte jébbal nañ ko procureur de la république procureur yóbbu na plainte bi commissariat jannatu woo nañ ma entendre nañ wax naa leen lu leer nee naa leen maytuñ kenn di wax ci yoonu murit wala ci Serigne Touba loo xam ni sëñ Mountakha joxewul ndigal wala sëñ Bass waxal ko boppam wala keneen koo xam jox nañ ko ndigal mu wax moo xam télé bu mu doon moo xam presse bu di doon jox nañu kayit boo xam tam signé nañ ko sëriñ am instruction la waaw leer na te loolu ñu ngi ci léegi nag danañ bàyyi yoon def liggéeyam ci li nga xam ne ci war li ci nag mooy am na loo xam dees koy fajal suñu bopp ndax xam na ni réew mi euh, problème religion lu bari état du ci dugg sëriñ bi wax na ko léegi article 80 képp ku touché président de la république ñu teg la ci yoon ñun nag sunu article 80 mooy sunu bakkan ci sëriñ bi fi nu gëm ci moom yow nag euh, barki démb bi nga defee émission wal fajiri ñun jokkoo nañ ak ñi ñu war a jokkal xam nga ni attaqué nañ la fa foofu ba commissaire bi ñëw na fi ñaan ni nañ la bàyyi euh, ndax bëgguñu yàq benn presse ndax ñun jóguñu pour def violence wala ñu yàq wala ñu toj wala ñu def neen mais yow lañ amanteel yow lañ amanteel règlement de compte sëñ Tuubaa duutoo ci wax lu baax duutoo ci wax lu rafet mayetuñ la nga wax ci te loolu nag li ko sëñ bi waxee mooy conférence de presse bi tey la doon ñun nag ñi ngi Dakar ñi béeguñ Touba ngi déglu parce que procédure bu gaaw lay doon plainte bi ñu déposé lu gaaw lay doon wala ñu fajal ko suñu bopp waaw ñu ngi la piste tamit dañ koy wax mu leer parce que du ñu la mayeti dara nga di ko wax ci sëñ bi ak keneen ku mu di doon fii nag ci Masaalikul Jinaan lañ la ko waxee sëriñ bi nag jox nañu ay ndigal yoo xam duñu ko wax waaye képp koo xam ni daal yaakaar nga sëñ Tuubaa xamal ni tooñ nga ko te ñun danañ jàmmaarloo ak yow euh, lii mooy li nga xam ne laa ciy wax na ko ñëpp bàyyi xel sëñ Tuubaa koo xam ni yow yow jot naa la nga ne nga wax ci sa làmmiñ ni sëñ Tuubaa nekkul sa xol ndax ku sëñ Tuubaa nekkul ci sa xol nga wax ko fépp dégg ko waaye mën nga ñoo bàyyi ak sëñ mi nga xam ne moom lañ gëm da nga bañ cee wax wax dëgg yàlla gëmoo ko sa yoon newu ci ñun gëm nañ ko wóolu nañ ko te moom lañ jox suñu deret ak suñu lépp nga wax loolu li ci des nag du ma ci sori mooy sama maam neewoon na ma sëñ Touba mas na leen wax ci njaareem ci affaire weer sama maam àndoon ak sëñ Touba ci yéen Jolof maam Ousmane Samb Bombali ba ci sëñ Mourou Moussa ba ci sëñ Mbacke Madina mii ci la bàyyi liggéey nee na sëñ Touba mas am na nit mas naa ñëw ci moom ni ko weeri feeñ na sëñ bi ni ko ah, mu ne ko weeri feeñ na sëriñ bi ni ko demal nga sëlmu ji saytaane nga gis man weer wi du ñëw ta tàgguwu te te nuyuwu ma du du fi jógee ta tàgguwu kon kooku du keneen ku ñu tudd sëñ Tuubaa nag li nga ko wax yow da nga ko regretté ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu